ada mana ada kaay nga génn ada وما يفعلوا خير فلن يحصروه والله عليم بالمتقين وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة إن تمسكم حسنة تسؤهم إن تمسكم حسنة تسؤهم a toog sama doom te dingiraay dingiraay taalibe bi Serigne Babacar laa man muy njool maam Thierno mbokkam mu baax ma nga xam ni moo nekk ca dëkk bu rëy maam Thierno mbokkam mu baax ma nga ni moo nekk ca dëkk bu rëy maam Thierno mbokkam mu baax ma nga xam ni moo nekk ci dëkk bu rëy. sëriñ bi matal na ko tey matal na ko tey. kooku nag mooy sama doom Modou xariñ loo yëg si nag sama doom sama xarit. sama doom sama xarit. Ah. kooku mooy sàmm Parcelles Assainies. yal na yàlla guddal sa fan. Serigne Ba Ngop. nga ko sunu sëriñ yow Ngop. bi sunu sunu sunu sunu saga Ngop. kooku mooy sago waa Parcelles. barke Alaaji Maaj. donc Mbacke Balaye sa kooku mooy sago waa Parcelles Modou xarañ loo Ngop. loolu daal yal na yàlla guddal sa fan. ah bi nga yëg see laa laa laa coow sa kaw dama bi ma ñëw ba léegi dama ne nem. waaw donc maa bëgg dangay sama doom ni sama xarit barka Alaaji Malik dama ne kuy def la bëgg. fokk mooy nekk ci suufu baas bi si. kooku nag toog te xam naa ni yàkkamti na. ndax yeneen jotaay koy xaar te li ma ko sànni il faut mu gërëm Serigne bi bala moo dem. kon alaaj bi loolu la ko ñëpp déglu mooy wër sànni ak. ah Modou Lo nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. nañ leen sant yàlla jëriñ si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di nuyu sunu sëriñ bu tedd ci toog ci mbooloo mi muy maam Thierno Ndamandaaru. nee du ñuy ànd ak sa ngor ànd ak ni nga war a àndee ñëw teewal ba gis nee na moom moo loolu loolu rafetlu na ko kontaan na ci. nee na li Modou Mbaye wax léegi di sama. benn bët di ko xoole ñaari bët mbàkke ndax yow ndax bis buy sagal di sagal yaakaar na ni ku sañoon boo amee bis sa sëriñ ñëw dundal la sa doom waaye li nga defal ba fay Modou Lo nee na rëy ci moom dafa ko xoolal benn bët tey ñaari bët nga mën a xool Moussa bu sëriñ Babacar Seye ngi noonu ndeysaan nee na nag tur wii nga xam ni moom la papis tudde maamam ku xam papis xam affection bi mu amoon ci maamam ak cofeel ga ak bëgg ga tur wii la bett xam na ni tur wii mu tudde maamam tey ci xolam la ko jëlee te yéene na ko nee na ko gis moom li may wax ci moom bariwul nee ku gis teewaay bi fa tabarakallah gis borom bi xam ne am na cër bu ko yàlla jox am na dañoo wax ne xale la xam setee mu mën a bokk ak mag ñi xam naa ni lii bu ko tey ñëw ci suy te yàqale wu ko dara kon yàlla yàlla ko tànn Serigne Cissé bu Serigne Baba Dérès maanaam Thierno. soo soppeeku ñu nii Serigne Cissé bu Serigne Baba Dérès. dinañ baaxal. di xaaral ci jëmm baax ñëpp. lu mu am baax nit ñi la ko am. kon Mbacke maa ngi la koy bay nga xam ko sa na yàlla ko def. Serigne Cissé bu sëñ Babacar. ndem ba nga nag. Jara ma Cheikh Ibrahima Fatim Mbacké Ndoré ni. tubaab maa fekke la bëgg. maa ko fekke. waaw tey mooy. bi mënul dara xamul dara maa ko képp la gis. maa ko képp ko gis. ah fay na bor bi tey. bi mu jegee tali bi nekk si mécanicien yi liggéey. maamam képp moo ko fay fekk. kooku tudd soxna Koumba Dabo waaye ci ka de. te ñun ñu nekk Interset. xam li xew Interset. xam naa ne dafa war a ndax tànk bi bari nañu